Maja yoo xam ne Maja man du sañu maa ma génn ngeen ne Maja Zarko xam naa dina leen ruubee xëppale saw yow fi mu leen feeñ nga Babacar ngi dina jël ak caméra bi ñëpp xam am na yàlla ko moom Zarko waaw daam leen caaxaan abu man mënoo loo. Ah, moo jël mbay guy gi daan jël arafas daan jën jën kayre daan bay ma ñoon daan waaw sant yàlla rek jël ñu daanu ah? waaw jël ñu daanu <laughs> <laughs> biyee si gën a yombu nee naa la comme yéen journaliste yeeg amateurs yi mënuñoo gis loolu mënuñoo gëm loolu <coughs> ah ko waaw parce que ah. non yéen mënoo leen koo gëm ñun xam nañ loolu c'est normal c'est normal c'est normal mënoo leen ko ñun xam ne tey booy bi fii nga ñu fekk fii ñun ñoo fi defandoo lépp fi leen jàngee bëre fii nga ñu fekk fii ba pat ba nekk xale yu ndaw xamuñu dara ñuy bëree yenn saa yi moo ñu dàq defal ay aar mu ñuy taqal ay aar di ñu ñawal ay kam ko kon dafa bëgg koo xamante ne ñun maanaam bu ñu musaana dem am combat ba pat boo xamante ne dafa am coow moom laay xëcc dem ko sama néeg ne ko yaay ñaw jaaj yi mu mu mu abiyee ñu kon kooku dafa topp làmb waaw ba tey làmb war koo fay kon tey yéen ñu ko xamul mun ngeen ne Zarko moo ko gën a tribilan moo ko gën a mun ruubee moo gën parce que Zarko moo waneegum loolu ci làmb ah, waaw parce que loolu la waneegum ci làmb mais Zarko mi ngi soog am adversaire potentiel dara dara barki Serigne Babacar si dara Zarko maanaam amul lenn loo xamante ne fëgg lukk na suñu bët nee naa la ñun Gounass fii lañ juddoo fii lañ yaroo fii lañ màggee bassin bee ngay gis àll nga war la woon da nga doon nga doon xëccoog nit di wax werante ñu ne leen dem leen tëb miir ñi toog di ataaya di waxtaan bàyyi leen ngeen xeex ba doyal tëbaata seen miir ji bisi Zarko jaarul foofu Zarko làmminu nante la jaar maanaam fan si bandi la fan si nante waaw am na droit taxaw la mu wax def ni waa sóobal yooyu ah. mais tey bu fekkoon dañoo ne ko dund uhuh. non ñi ko dund Zarko day xaar milieu bu doon du fay Zarko non milieu bu doon fay. du fay Zarko. comprendre nga. mais hmm. sa sañ a bëreloo ñaa bu ndaw. waaw ñaa bu ndaw li ko bëreloo mooy wax rek. Hmm. ñaa bu ndaw li ma koy li ma wax li ma koy wax mu wax naa pare ñaa bu ndaw instant semaine deux semaines ñu toog di waxtaan di sukkandiku di xool nan la ñuy ba bëre lamb ji laal kii suba daw ma këram démb ba tey daw ma kër parce que li si war lépp def nañ ko xam nga li ma na nañ bàyyi ne ñaa bu ndaw xale la ñaa bu ndaw di làmb ji du làmb maca du làmb kenn làmb ñaa bu ndaw la parce que soxlawu non non bu soxlaa conseil dafa ñàkk fayda làmb ji làmbam la parce que ku si nekk xam nga sa buntu a ku si nekk xam nga tey li lay li lay lay may nga teral sa yaay li lay may nga teral sa baay li lay mer nga teral say encadrement teral ñu yaakaar ci yow léegi ñaa bu ndaw làmb jooju la tool ni su ko ñàkkee dina ko perm dina ko yàqal lu bari ci carrière am xam nga damay dégg ay wax ñu naan ñaamu ndaw bu ñàkkee combat bi du koy du ko du ko ngeen di wax noonu amul defet defet lépp a métti defet bu mu munti doon ci àdduna am na fu mu la jëlee am na fu mu lay amul defet bi nga xam ne tey da nga koy am ñu naan la wàññiwul dara sa carrière mhm. loolu waxu naxante la rek mhm. maa ngi dama toog neuf ans daanuwuma barki démb laa daanu maa ngi mel ni ko musul daan waaw mais defet defet la waa mais defet defet la abu loolu làmb la nañ sóoraale loolu defet c'est defet surtout Zarko daan ñaabu ndaw ñaabu ndaw mu ngi soog am adversaire potentiel bi ñu naan tey mënul daan Zarko la nit ñi wax parce que Zarko mooy adversaire am potentiel ci doole ci xam-xam mu ngi soog a voilà moo tax ñaamu daw fii la war a exploiter boppam moo tax fii la moo tax fii la war a wane boppam fii la war a exploiter boppam fii la war a wane waa Sénégal man maay kan te xam naa ne am na courage bi am na ambition bi nekk na ci moom bis ba ñii di wax nii ñëpp yéene la ñuy waxee rek mais l' intérieurement liy gagné combat baa ngi si ñaamu mhm. ma ma maay sañ laaj laaj benn laaj. looy laaj. non loolu du ci wax. loolu loolu du ci wax loolu code la. <laughs> code ah, xam naa ne la dëgg da si jàmm mu ngi kuul ñu ngi déggante nii léegi. ñaabu ndaw musul wéet ah, ñaabu ndaw musul wéet nit ñi ñooy wax rek ñaabu ndaw musul wéet bii wéet si côté autorité la wéet si côté jàppale. côté boobu la wéet. côté bi nga xam ne tey financement dafa am làmb yoo xamante ne financement moo koy gagné. Ah, voilà ñaabu ndaw ñaabu ndaw dafa ñàkk si làmb ji financement. Oh. parce que da doon xaar tey nit ñi dimbali ko. nit ñi di xaar tey pour ñaa bu ndaw jël dàllam dugg ci biir kër yi te ñaa bu ndaw mënul def loolu yëpp mënul dem entraînement yeewu dem contact guddi yi nga bëgg a sol sa daal dem toppi kër ministre yi kër bureau yi mënul nekk sportif da ngay am koo xamante ne tey mais rukk bi fii la Abdou Diouf génnee fii la Mambou génnee fii la Khalifa Ngiraan génnee fii fii fii fii Lirou Diagne fii la génnee mais fii fii fii fii fii kedeer na ku ne moo tax fii mënoo fee dëkk te amoo ndoxtu bëre mënoo fee dëkk te amoo ndoxtu bëre moo tax bu naan Zarko daa dàq bëre ñaabu ay ree la ñuy def parce que fii fii yëpp bay àll fii fii presque fii ñun fii dañoo ñun mbapat lañ defee lépp. c'est dañoo gis combat ñaabu ndaw yi yi nga xamante ne yi mujjee bëri yëpp bu ñëwee jamono doole la lay bëri parce que am ko. macha allah a bëri la. parce que da doon jël si moo tax ma ne gars yi xamuñu ñaabu ndaw ñaabu ndaw bëre séeréer bi tey ji da doon ànd ak ñu fi ñun toog ay 6 mois du nekk si koñ bi fii ay 1 an bu ñaabu ndaw di teg tànkam si koñ bi est-ce que ay 1 an ko xam ne mu ngi ci àll bi bàyyi na yaayam bàyyi na mbokkam bàyyi na lépp dem di lekk ay cere càq bu ñuy sotti ndox ñun ñu nekk fii di yekk ay ndawal yaa ngi dégg ñun nekk fi di lekk ay laax fu mu neexee ñaa bu ndaw cere càkk la doon lekk nga téye ko un an di topp ci àll gi di bëri da doon ñëw kanam gi yëpp xuréeku fii xoosi fii xoos mais yàlla day fay coono mais il faut comprendre di loolu tubaab bi nee na il faut comprendre les ambitions de la personne maanaam nit ki foog nga xam tey fu mu jaar pour nga xam li mu mun a am tey waaw mais xam nga tey nit ki munoo ñàkk xam fu mu jaar tey mu mel nii rek nga ne warul mel soo ko defee rek tey destin wu yàlla nga dindi parce que nit tey sa démb tey ñafe jaayante nga am foo toll tey nit ñi ne waroo fee ñëw wala waroo fee toll wala kii warul yegg fii wala fii la war a def wërsëg tolloowul yàllaa koy bind mais lu laajal yàlla la moo tax sa juróomi baaraam yi tolloowul ko loolu yàlla nga koy laaj da nga ko sama juróomi baaraam yi lan moo tax defoo ko lépp tolloo moonte dafa jël xam nga mais combat bi lan la jëlal bi mu ñàkk combat bi lan la pare wuñ sax pour ñàkk ko billaahi wallaahi tallaahi pare wuñu sax pour ñàkk combat nekkul sax lu ñuy tëdd di xalaat non non nekkul sax lu ñuy xalaat xalaat pour booy bi ñàkk combat bi non non barki Serigne si bu ma yaakaar du làmb ju ñuy ñàkk. billaahi wallaahi du làmb ju ñuy ñàkk du làmb ju ñuy ñàkk làmb ju ñuy ñàkk boo ñëwee da nga koy xam Zarko deful permanence bi tax tey ñu war a yàq suñu ñàkk suñu làmb si moom. Zarko nekkul mbër mi nga xam ne tey dañuy taxaw arbitre tëj barrière yi génn ñëw perturbé wu Zarko bëreem moo ñu gën a arrangé ci làmb. bépp adversaire bu ñu am Brex Zarko moo ñu ko gën a arrangé ñun. billaay wallaay tallaay te Zarko xamul loolu xam nga kañ lay xam loolu. Mhm. suba si vingt trois heures et demie ñuy jàpp minuit lay toog këram moom kese soo ko comprendre. ñu ngeen wuti kër yi foofu la Zarko di comprendre nañ ko dagg ba beneen yoon stade la mbaa mbapat boo xam te dafa am coow uh-huh. moom laay xëcc dem tëj ko sama néeg ne ko yaay ñaw jaaj yi mu mu mu habillé ñu kon kooku dafa topp làmb waaw ba tey làmb war koo fay kon tey yéen ñu ko xamul mun ngeen ne Zarko moo ko gën a turbulent moo ko gën a moo gën parce que Zarko moo waneegum loolu ci làmb ah, waaw parce que loolu la waneegum ci làmb mais Zarko mi ngi soog am adversaire potentiel dara dara barki Serigne Babacar si dara Zarko maanaam amul lenn loo xamante ne fukk lukk na suñu bët nee naa la ñun Gounass fii lañ juddoo fii lañ yaroo fii lañ màggee bassin bee ngay gis àll nga war la woon da nga doon nga doon xëccoog nit di wax werante ñu ne leen tëb miir ngeen tëb miir nit ñi toog di ataaya di waxtaan bàyyi leen ngeen xeex ba doyul tëbaatal seen miir ji bisi Zarko jaarul foofu Zarko làmminu nante la jaar maanaam fan si bandi la fan si nante waaw am na droit taxaw xëlam wax def ni waa sóobal yooyu mais tey bu fekkoon dañoo ne ñi ko dund non ñi ko dund Zarko day xaar milieu bu doon fay du fay Zarko non non milieu bu doon fay. Mhm. du fay Zarko. Mhm. comprendre nga. mais suba yow suba yow. Mhm. Mathieu a bëreloo ñaa bu ndaw. li ma ko bëreloo mooy li ma koy wax rek. ñaa bu ndaw li ma koy li ma koy wax naa ko ba pare ñaa bu ndaw instant yii surtout maa moom wax. parce que lamb ba mu desee une semaine deux semaines ñu ngi bataay toog di waxtaan di sukkandiku di xool nan la ñuy ba bëri lamb ji laal kii suba ba léegi daw ma këram démb ba tey daw ma kër parce que li si war lépp def nañ ko xam nga li ma wax lamb na li mu war a bëree lamb ji nañ bàyyi ne ñaa bu ndaw xale la ñaa bu ndaw di làmb ji du làmb macca du làmb kenn làmb ñaa bu ndaw la. parce que soxlawu non non bu soxlaa conseil dafa ñàkk fayda làmb ji làmbam la parce que ku si nekk xam nga sa buntu àdduna. Hmm. ku si nekk xam nga tey li lay li lay li may nga teral sa yaay li lay may nga teral sa baay li lay nga teral say encadrement teral ñu yaakaar ci yow hmm. léegi ñaa bu ndaw làmb jooju la tool nii su ko ñàkkee dina ko perm dina ko yàqal lu bari ci carrière am xam nga damay dégg ay wax ñu naan ñaamu ndaw bu ñàkkee combat bi di koy di ko di ko perte mais loolu ngeen di wax noonu amul defet defet lépp a defet bu mu munti doon ci àdduna am na fu mu la jëlee am na fu mu la wàccee amul defet bi nga xam ne tey da nga koy am ñu naan la wàññiwul dara sa carrière mhm. loolu waxu naxante la rek defet defet la rek mhm. man maa ngi dama toog neuf ans daanuuma barke démb laa daanu maa ngi mel ni ko musul daan waaw mais defet defet la waaw mais defet défaite la abu loolu làmb la nañ sóoraale loolu défaite c'est la défaite surtout Zarko daan ñaabu ndaw ñaabu daw mu ngi soog am adversaire potentiel bi ñu naan tey munu daan Zarko la nit ñi wax ah, parce que Zarko mooy adversaire am potentiel ci doole ci xam-xam mu ngi soog moo tax ñaabu ndaw fii la war a exploiter boppam moo tax fii la moo tax fii la war a wane boppam fii la war a exploiter boppam fii la war a wane waa Sénégal man may kan te xam naa ne am na courage bi am na ambition bi nekk na ci moom bis ba ñii di wax nii ñëpp yéene la ñuy waxee rek mais l' intérieurement lii gañ a combat baa ngi si ñaamu ndaw. dëgg la mhm. ma sañ laaj ma laaj benn laaj. looy laaj. dafa daw. loolu duma ci wax. loolu loolu du ci wax loolu code la. <laughs> a ah, xam naa la dëgg da nga si jàmm mu ngi kuul ñu ngi déggante nii léegi ñaabu ndaw musul wéet ñaabu ndaw musul weet nit ñi ñooy wax rek ñaabu ndaw musul weet bii wéet si côté autorité la wéet si côté jàppale côté boobu la wéet côté bi nga xam ne tey financement dafa am làmb yoo xamante ne financement moo koy gagné ah, voilà ñaabu ndaw ñaabu ndaw dafa ñàkk si làmb ji financement oh. parce que da doon xaar tey nit ñi dimbali ko nit ñii di xaar mm-hmm. tey pour ñaabu ndaw jël dàllam dugg ci biir kër yi te ñaabu ndaw mënul def loolu yëpp yeewu dem contact mm-hmm. guddi yi nga bëgg a sol sa daal dem toppi kër ministre yi kër bureau yi mënul nekk sportif da ngay am koo xamante ne tey mais ruq bi fii la Abdou Diouf génnee fii la Mambou génnee fii la Khalifa Ngiraan génnee fii fii fii fii Lirou Diagne fii la génnee mais fii fii fii fii fii keneen na ku ne moo tax fii mënoo fee dëkk te amoo ndox tu bëre mënoo fee dëkk te amoo ndox tu bëre moo tax bu ñu naan Zarko daa dàq bëre ñaa bu ndaw ay ree la ñuy def parce que fii yëpp bay àll fii fii presque fii ñun fii dañoo ñun mbapat lañ defee lépp. c'est dañoo gis combat ñaa bu ndaw yi yi yi nga xamante ne yi mujjee bëri na ko. Mm-hmm. macha mm-hmm. euh, a bëri la. boo xoolee combat bi arrêté daan di moo tax ma ne gars yi xamuñu ñaabu ndaw ñaabu ndaw bëre séeréer bi tey ji da doon ànd ak óobali bàyyi ñu fi ñun. to ay 6 mois du nekk si koñ bi fii. un an bu ñaaw bu ndaw di teg tànkam si koñ bi est-ce que comprendre nga ay un an nit ko xam ne mu ngi ci àll bi bàyyi na yaayam bàyyi na mbokkam bàyyi na lépp dem lekk ay cere càq bu ñuy sotti ndox ñun ñu nekk fii di lekk ñun nekk fii di lekk ay laax fu mu neexee ñaaw bu cere càq la doon lekk nga téye ko di topp ci àll gi di bëri da doon ñëw kanam gi yëpp xuréeku fii xoosi fii xoos mais yàlla day fay coona mais il faut comprendre di loolu tubaab bi nee il faut comprendre les ambitions maanaam nit ki foog nga xam tey fu mu jaar pour nga xam li mu mun a am tey waaw mais xam nga tey nit ki munoo ñàkk xam fu mu jaar tey mu mel nii rek nga ne warul mel nii loolu soo ko defee rek tey destin wu yàlla nga dindi parce que nit tey munoo sonn sa démb tey ñafe jaayante nga am foo tollu tey nit ñi ne waroo fee ñëw wala waroo fee toll wala kii warul yegg fii wala fii la war a def wërsëg tolloowul yàllaa wul bind mais lu laajal yàlla lan moo tax sa juróomi baaraam yi tolloowul ko loolu yàlla nga koy laaj da nga naan ko sama juróomi baaraam moo ko lépp tolloo moonte dafa jël xam nga. mais combat bi ci xale bi mu ñàkk sax pour ñàkk ko. billaahi wallaahi tallaahi pare wuñu sax pour ñax combat bi nekkul sax lu ñuy tëdd di xalaat. noo non nekkul sax lu ñuy xalaat xalaat pour booy bi ñàkk combat bi. non non barki Serigne Babacar si bu ma yaakaar du làmb ju ñuy ñàkk. billaahi wallaahi du làmb ju ñuy ñàkk du làmb ju ñuy ñàkk làmb ju ñuy ñàkk boo ñëwee da nga koy xam. Zarko deful permanence bi tax tey ñu war a yàq suñu ñàkk suñu làmb si moom Zarko nekkul mbër mi nga xam ne tey dañuy taxaw arbitre tëj barrière yi génn ñu per ci béewu Zarko bëre moo ñu gën a arrangé ci làmb bépp adversaire bu ñu am bëreex Zarko moo ko gën a arrangé ñun. billaay wallaay tallaay te Zarko xamul loolu xam nga kañ lay xam loolu. Mhm. suba si vingt trois heures et demi ñuy jàpp minuit lay toog këram moom kese soo ko comprendre. ñi ngeen wuti kër yi foofu la Zarko di comprendre nañ ko dagg ba beneen yoon stade la ñuy daje jeex